xale yi nañ leen tenir discours boo xamante ni buy tax bu leen amal njëriñ nañ leen jar mais jar du rekk ci école yar ci njaboot gi la yar ci mbedd bi la yar ci ñëwaat ci suñuy valeur yi ma doon wax man de plus en plus li may constater may mun a c'est vrai que ce n'est pas irréversible mais dafa mel dafa am benn xaw ma nan laa ko mën a waxee ci wolof xëy na di nga ko mën a tekki dafa mel dafa am déchéance morale ci Sénégal déchéance morale nag boo fa tolloo xam nga lu mu indi mu am fanweeri nit yi ñu rey ñu ne ah garaaw seetluwuloo ni tey ñu reyee la mort bu ñu reyee nit léegi du def dara. on a banalisé la mort donc. nañu moytu parce que tous les pays yu sombre ci li ñuy woowee kaw fa la tàmbale que chacun sa ressaisisse mais ki nga xamante ni moom la gën a interpellé mooy njiitu